dem naa ko ngir màggalam gi doon santat rek <laughs> hmm. yaakaar ko ndax xamal lu ko waral dañoo tàbbi ci waxu Serigne Saliou bi ki koy waajal ak ki ko dul waajal mënut a bokk caravane bi nu mu tudd waajal màggal Touba yàlla nañu ko yàgg a fekke loo jëf ñu ah, di gën a ci Serigne Touba rek ndax fi ñu dem fépp boo demee nañ fay fekk taalibe Serigne Touba ñoo ci gën a néew waaye boo àggsee doo leen xam ne taalibe Sëriñ Tuubaa yi kon lii day firndeel rek Sëriñ Tuubaa moom la ma waxoon suñu boroom jox na ma nosu ruu mi def yëpp mu ngi sama loxo lii caravane bi da koy dëggal ndax foo mën a dem maam ñëpp dañuy maase di ànd di wax naan jërëjëf Sëriñ tubaa ne ñaari nit. waaw sant sant yàlla bu baax a baax yëf yi moom doorkaal la mujj na ayib wax dëgg yàlla euh, lépp euh, am na jàmm. waaye lépp itam li ko lal mooy li nga xamee ni mooy liggéey Serigne Touba jërëjëf Serigne Ba. di doon la ziar waaw euh, sant baax rek kontaan nañu bu baax am na solo lool karawaan bi moom wax dëgg yàlla moom lépp jàmm lépp xéwal fu ñu dem fu nekk dañuy màbbee ko topp karawaan bi. bu njëkk xañ na ñu xam mais léegi xam nañ ko léegi waaw wax dëgg yàlla ñëpp bëgg nañ kontaan nañ waaw ñëpp nekk benn ànd liggéey bi rafet te ko ci yoon moom daal ñu sant baax kontaan nañ baax sëriñ bi woo na la. xanaa kontaan ci lool rek. yàlla moo ko gis naa ci it ne. ñi ñuy fekk si ñoo ñuy gën a kontaan ndax dafay mel ni ñoom daawuñ bokk ci màggal gi waaye caravane bi boolewaat na leen ci màggal gi euh, li ma ci gën a neexate nag mooy euh, découverte bi ñuy def ci biir nga xam ne barab ya nga daan dégg léegi da nga ciy teg sa bët loolu bokk na ci li ma gën a neex ci caravane bi. yoo xam ne moom la bëggoon. mooy màggalam gi. waaw karawaan bi mi ngi aw ci yoon ñu sant yàlla rek bi nga xamee ni euh, fekk may nañu ñu fekk waat ko ren euh, fas yéene li si sëñ bi séntu yëpp ñu gis ko si ren nag cachet bi boo ko seetloo euh, diggante fexe ba tarixe yi doon benn mu nga xam ni mooy woote bi sëñ Sidi Moxtaar woote. Euh, fu ñu jaar fu nekk ñëpp ñu ngi koy rafetlu loolu moom rek dafa sedd xol wane ni jullit yi benn lañu te loolu kenn ku ne war nga see bay sa waar di ko suuxat ba mu taj ci réew mi yëpp ba nga xamee ni sax ñi nga xamee ni bokk ñoo ñoom diine mais ñu war a mën a ànd ak ñoom ci li nga xamee ni mooy li ñu bokk muy suñu réew man daal wax dëgg yàlla caravane bi mission bi muy dox dañ ko war a encourager dana tax réew mi ratax gi nga xamee ni war nañ ko soxla bennoo bi nga xamee ni war nañ ko nekk ci li mën a nekk bi ak addis ndigal laa ngi sëñ Bàmba nag yëpp daal dina xëñ maam daal ci gàttal bu ñu ko doon misaal mooy ku ñëw màggal ne màggal di mel jàppal ne bisu caravane bi léegi bis yow mook bisu màggal ga daanaka moom la ñuy dund saa su ne muy mbir moo xamante ne ñu ngi ñaan yàlla fekk koy at yu bare bare bari ci Serigne Touba nangul ñu liggéey bi euh, ñu yokk jumtukaay yokk mën-mën yi ba lii ñuy def lépp ni ñu ko bëgg a mbokk taalibe yi ci àddina bi ñu gën ko mën a ak bu màggal witt lam waa ngi yii yëpp nag benn boo am rek rek la wax. kon daal dañuy wax ne dañuy gën a sant bu baax a baax ngir ne ay leçons yu bëri bëri yokkuwaat na mooy li gars yi di jàng ay at ci biir école yi ñun jàng nañ ko ci ay fan ci biir réew mi ak ci loolu tamit keroog moom lañ ko yóbbu kon ñu ngi sant bu baax ñi nga xam ne ñoo ko xalaat doxal ko jàpp jàpp tamit def def def ci mooy yëpp ngir ngir mu sotti ñu bi moom bëggut màggal bett kenn. waaye sëñ bi tamit bëggut màggal ñëw am murid di ci dese dara sëriñ bi bir nañu bëgg loolu ndax xam nañ ne lim ñu fàggul ci màggal mënuñu loo jëf jënn jëf ju ñu may lu mel ni màggal kon loolu sëñ Mbàkke jàngat boobu laa cam waaye dafa am leneen lu ci sofu loo xam ne dafa bokk ci liggéey sëriñ bi muy wër gi ñuy wër réew mi day jokkalewaat ak bokk wër gi ñuy wër réew mi Serigne Touba dafa bokk ci li Cheikh Sidi Mokhtar njëkk a digle muy julli ñi nañuy bennoo tarixa yi nañuy bennoo loolu moo waral fépp fu mu déparé xam naa ci seen image yi ñi leen di topp danañ ko gis gis ngeen ñuy dem ci ay tarixa yoo xamante ne bii ay tiijaan la ay ñaseen di leen fekki di di di jokk bokk gi loolu bokk na ci man li ma gën a jàngat tamit ne njariñ li gën a rëy ci caravane bi tamit ci la bokk